Sénégal 4 TV yow yaa ko ku ne mën na wax xalaatam ci Sénégal 4 TV numéro Sénégal 4 TV mooy le 77 507 27 29 Sénégal 4 TV forever. salaamaaleykum Sénégal 4 euh, du moins mm, maa ngi wax seen wàccuwaay di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen di ñaan buur yàlla yàlla yàlla defal jàmm euh, man nag dama dégg seen benn intervention. bu neex trop ci youtube bi bu doy nak bu contane bu bok ak samay wax euh, parce que man maa ngi dund fi ci Maroc euh, Assane moomu ngeen doon def euh, waxtan ci mom moko ko soxna euh Assane nak wax ji nga ci wax rek da nga wax euh munuma avancer nak ci wax ji ngi deglu sa réponse xol mais dal waxtan bi am njariñ te Assane fi la nekkoon ci ñun ño fenn fu nekk bi ma ñëwee tamit euh, hébergé woon naa ko tamit ba bi muy dem ci sama ginnaaw la demee waaye am na ay kàddu yu bari yoo xamante ni xewoon na fi ci ginnaaw bi ma tukki jee euh, mënaguma nag avancé bu baax a baax a baax. non sama sama grand sama sama sama grand laay waxtaanal. sama grand frère laay mu ni ma Assane. siiwal na leen ndax yéen ñëpp am ngeen xaalis da ngeen doon liggéey di ko nëbbatu da ngeen di liggéey di nëbbatu ndax Assane moo leen gën a nangoo liggéey ndax Assane liggéey na fi huit mois rek liggéey na fi trois millions ah <laughs> mais grand ah grand. Assane de xam naa ne li tax mu ñëw mën a dëppaat nii. ah bu ah. ñëw. wala lam am bu ko doon am man ah, waaw. yéen ñii moom bàyyi. parce que ñun parce ah, que ñun ñi am métier. ñun mënuñoo am loolu Assane amul métier mën a gagné 3 millions ci 8 mois moo tax gis nga boo dee déglu. ba dem ba lebal gramme 500000. ah mu koy tënk mais ko. ah dama sama bi ba yor xaalis moom mu ne waaw. wax fi xaritam bu nekk Italie. woowu fi xarit bi nekk Italie tamit. kooku xarit ba moom moom kii sax mooy seere moom guddi ga man mii ma am na la taxaw di ñu ko wax. waaw ah. naan ma xoolal dama koo bloqué. dama kaa bloqué ndax. ndax moom nee euh, dafa jàpp ne xaritam la. mu naan ko ay waaw yow boo ma woowee. xaalis xaalis a tax nga woo ma. waaw yow doo may woo nee na ma kooku di xool loolu may ak fi ñu jaar fépp. <laughs> nee na ma tukki tey Italie tax mu di ma waxee nii. léegi kooku war naa woote naan di wax. moo tax ma ne kooku man bu ma mënoon a tontu dinaa ko wax. non man man man kooku su ma ko mënoon tontu naa ko tontu. puisque Assane bi muy jógee fii amul lu mu lekk. Assane paas sax amu ko bi muy dem. te di wax ci ay rajo siiwal xaw ma lan naan bëgg naa ngeen jàllale ko. loolu la wax dëgg bu waxee kii ba pare. ah naan bëgg naa ngeen jàllale lool nag. di wax noonu naan waaw. le 16 message yaa ngi ci moom moom le 16 la ko Assane wax. Uh-huh. du ko wax. na ko waa na woo na wax message yooyu noonu. message yëpp a la ko Assane wax mooy da ko doon ñaan pour mu dimbale ko. da ko doon ñaan pour mu dimbale ko. loolu ndaw bi. ñu ne ndax ñun mu ne sama grand bi nee na ndax ñun xamoon nañu relation Assane xamoon nañu ndax Assane day dund ak ndaw si. non Assane moom Assane da koo nëbb waxu fi kenn ni day dund ak xale bu jigéen waaye wax ak xale bi uh-huh. moom du ko wax uh-huh. ndax boobu am nañ cas waaye Assane boo ko xam naa na problème uh-huh. ndax da koy wax sax naa la non dama dama am problème ndax damay xalaat naan la bu ma mënuma toog ci kër gi ma fi toogee damay xalaat wax day génn dem ci pari foot yooyu jouer ay pari foot muy ñëw muy ñëw des fois ngoon entraînement def dikkaat voilà xam nga sax di wax di waxtu waaw xam nga ne bu ñu tëdd guddi gi day wax rek vocal bi day tëdd mbàjj bi di wax vocal ak ndaw si <laughs> ndaw si moom ma ngi doon wax ak moom mais boobu xamul woon ni ndaw si may nañ ko waaw xamu ko déwéna xam na ko ba li nekk hmm. Assane bi la wax vocal wax ak moom uh-huh. waaye avant xamu ko dañ koo bàyyi ci biir mais après waaj xaritam bi moo ko woo ko may nañ ko ah, ah, dañ ko woo ne ko may nañ ko nag loolu nag mooy di coow li mu ne fii di menacé rek léegi mag ji nee na dañ koo yónnee trois cent milles pour mu ñëw xam nga déjà foofu rek fen la ndax bii avion jarul trois cent mille Assane avion la jël bi muy dem. Assane téléphone am la jaay dem ba ko jaayee fii cinq cent cinquante Assane jël dañ koo dimbale Assane ay magam yëpp kenn jox ko yàgg na fii bëgg ñibbi di woo ku ne pour mu dimbale ko yónnee ko Assane kenn yónneewu ko. Assane kay di ma ko Assane mbokk bi parce que affaire ñun dañoo war a wax xam nga ñun lañ xam kii dafa mer dafa dafa ñëw pour ray si ko waaw déedéet maanaam problème même ñëw na pour ray ko waaye Assane dafa amul ay yére yu demee amul yére parce que yére yi doon entre yi yooyu la fi bien puisque daf leen daa gis nga ñun ñii ak ñii ci kaw am na ñoo xamante ni bokkuñu lu ñuy dund puisque ñun xam nañ li xew ndax ñun dañ fay ñëw pour liggéey eh, yaa ngi dégg fii lañu toog waaw yow laa mën a waxtaan moom beneen am na guddi yoo xam ne Moustapha day neri ratata naa ko lu tax ngay ñibbi nangam nangam bu ko defee ma ko ko Moustapha kii ñibbi moo xam la ko tax di ñibbi waaw waaye moom waxul lan moo tax muy ñibbi nag mu ne moom Moustapha ne ko non ay yi ngay wax moom du problème mu ñibbi cas yi moom bu ma doon yow damay toog liggéey ñafe ko waaye du tax ma dem Sénégal mhm. man non chien yow mënumaa wax ak yow ne ma non yow man laa a <laughs> yow mënumaa waaye moom man xam naa ne Assane mii y a quelque chose puisque puisque lii ñu tey bu ko waa Sénégal yéegee ñun ñu toog fii amuñu xaalis bu ñu yónnee Sénégal dinañ ni kon ñun dañoo bañ a yónnee xaalis Assane ñun ñi fi ñun ñi fi Euh, euh, des fois daal gars yi ñoo daan am euh, chantier yi fii. <laughs> am na ñu ñuy wàcce conteneur. bu uh-huh. dem ànd ak ñoom wàcce. wàcce conteneur te lool saxul am 100 dirham. 100 dirham mooy 6000 francs. waaw beneen bi mu dem waa wàcce mooy bi ñu mujjee wàcce am seen 200 dirham xaw ma. boobu la ci wàcce waat beneen bi gars yi def ko jël jël ko ko journal yi te xam naa ne motul une semaine loolu daal la fi jot a liggéey ci ab chantier. waaye bu dul loolu moom bu xëyee dee tëdd ne moo gars yi yam rek xëy tëdd ba mu naaj. bu dem ca Paris foot ba bu ñëwee ndékki. bu paree des fois mu añ des fois du añ bàyyi ba reer mu jënd reer waaw loolu gi sax day day amee nay seex bor. dégg waaw amee na parce que bi seex nee na. seex nee na na ko ñaari yoon xaalis waaw da ko tey la téléphone mais seex envoyé na ko ñaari yoon xaalis benn bi 30 mille la lépp lépp sax ne seex nee na boo calculé lépp lépp 30 000 la ndax benn bi quinze mille la. non moom ay appel moom mu ngi ci téléphone seex. appel am moom yu mujj guddi gi nga xam ne bi mu xëyee ci la dem boobu mu jotee Baye Fall boobu appel yaa ngi ci téléphone Cheikh ndax booba téléphone Cheikh la yor guddi gi yëpp ba Cheikh naa ko jox ma sama téléphone bi voilà téléphone bi moom mu ngi Cheikh ndax Cheikh guddi googu yëpp téléphone non du question numéro Ndoye Bane Ndoye Bane sax gis nga bu fekkente ni waxtaan wax dëgg ca la bu ñuy wax Ndoye Bane tey du Ndoye ngay wax gis nga Ndoye information yi mu am ay tës la koy yóbbu yaa ngi dégg du ma xam nga xam nga kan moo baax xam nga kan moo baax xam nga kan moo baax Sénégal 24. waaw waaw waaw info yooyu ñooñu nag fi mu ne ñooñu xam nga lan moo tax kooku mën naw ko xam nga kooku la moo tax xam nga la moo tax mën naw kooku noonu xam nga la moo tax mën naw kooku noonu puisque intervention bi ma dégg mu def ko analise bi ñu def ñun bi ñu xamal li ñu xamal Assane ñun kooku analise boobu la def ndax li bu njëkk wax mooy dani eh, nan la nit mën a demee weeru barax weeru barax lu mooy weer bi sës ci weer ci koor gi

ñoom fi mu ne gisoo gars yi li ñu wax ci kii day ambulant te ambulant amul liggéey kii amul liggéey keroog bi muy jógee Casa di ñëw fi indi na yére indiwul yére déggoo li ma la wax moom ñett fépp yére mi ak mbuusam boobu la fi indi benn bi mu bàyyi mu lu mu wax nee na dafa am nee na dafa am ku mu dénkoon yéreem Casa waaw man loolu la may wax ne ma Casa daa am ba muy ñëwee comme ko joxoon yére mu ne ci benn magasin kooka moom daf nee na moom la dem fekk naar ba dàq ko nee na nag léegi mu ne ma mu ne ma mu ne ma bi ma ñëwee laaj ko naa ma ne ko sama yére bàyyiwu ko fi saag bi mu yére yi mu ne ko non non gis nga Assane bu ñu waxalee rek te fi nekk Assane ba mu ñëwee Maroc ba léegi ci ay jafe-jafe yooyu mu am nag ba pare ñu mayee gelam bi loolu moo ko gën a indil problème mu dem ray ko non maanaam Assane bu daan wax ak yow ni muy dëree di jékki-jékki day wax ak mu absenté ne feneen nga xam ne kii xam nga dama daan wax gars xam nga dama daan jékki daan ne Assane moom kaa bi ma ngi ko denc te waxul carrément li xew. loolu moo ko reylu puisque tey bu fekkonte ne mi ngi nekk ak ñun. léegi nag bi mu toogee fii dane woon day maanaam li tax mu profité dem moom xam naa ne euh, euh, euh, problème bee problème bee yokk a tax waaye dana woon dafiy toog quelque temps pour dajale bu amee tuuti jënd ay yére fii. Mhm. mën a ñibbee ak moom. waaye xam naa nag fi mu ne booba teg pression bi jublu mhm. ci la demee ndax booba ma ngay xool fan yooyu ma ngi taxaw di woo ku ne pour ñu yónnee ko ko. magam bi naan yónnee na ko xaalis te dèjà billet avion rek jarul trois cent mille léegi am na ci commentaire sax benn doomi nijaayu ndaw si loolu la wax nee na nee na nee na ku amul amul nee na nee kuy kuy ñëw amoo paas nan ngay mën a yónnee trois millions Maroc am na mu ko wax ci information yi Sénégal 4 TV il est 77 507 27 29 Sénégal 4 TV forever.